amaat nañ ko euh, lépp rek ñu jëm ci jàppale lislaam jàppale diine mu aju ci wàllu SMS yi waaye bi nag dafa am soppite boo xam ne mu am solo bu ci am moo nekk euh, dootoo nekkati naan yaa ngi yónnee SMS chaque jour chaque jour ñi dañ lay ñaan rek nga inscrire euh, ci numéro bi ñu wax 26 26 1 mais pour nga inscrire da ngay yónnee Ali Imran par SMS bu ko defee ñu jàpp que ne inscrire ba te noppi nga pour euh, may Aly Imran semaine bu jot juróom-benn fukki dërëm wala 300 francs ci tubaab bu ko defee dinañ la yónnee bés boo yónnee loolu mu yónnee la benn doigt wala benn xadisu benn xadis nga xam ni li si mën a euh, jàngee sa diine incha allah rabbi loolu daal mooy xew-xew bés bi nga xam ne indi nañ ko fii si association Aly Imran si njiitagu sax Aliou Sall pour bëgg lépp li nga xam ne projet la ci diine ci l'islam ñu mën ko taxawal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 ni ñu koy baaxu di defe mooy jàng al aaya door a ñëw ci jéem koo firi ak jéem koo tekki aoudu billahi min alsheytani irrajim innama almuminuuna ixwatum fa aslihu bayna axawaykum wattaqu llaha laallakum turhamuun sadaqa allahu alazim wa ballaxa rasuluhu alkarim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 yàlla na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot sunu borom subhaanahu wa ci laayu ji ñu toll daf ci joxoñ lu am solo mu di al uxuwa al imaaniya al uxuwa al imaaniya muy bokk gi war a am ci diggante ñi bokk gëm yàlla mu ne uxuwa googu la joxoñ fii ne al muminuuna dong te tabaarakallaahu tey war a nekk suñu ñaarlu daje ci laayu ji daje bu njëkk bi gisoon nañ ci départ bi ala lisaani isa bnu maryam wa awsaani bis wa zaka dana yàlla def ko dénk ne ko dénk naa la julli waaye dénk naa la azaka mu ne julli gi àqu yàlla la ci nit ki azaka ji àqu nit ki la ci nit ki waaw loolu gisoon nañ ko ci bind bi nu weesu jéemoon nañ ci fa fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum ragal leen yàlla ba noppi defar seen diggante defar seen diggante mooy équipe boobu nga xam ne mooy al uxuwa al imaaniya bu leen seppi kenn wàcc ku jagut jéem leen ko jagal ndax sunu mbubb yi duñ def mbubb mutilim ñu wàcc nekkoon àdduna tukki mbubb mutilim dañ koy fóot paase ko dugalaat ko ci biir mbubb yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci daayiratul imaan buñ ci xamee kenn koo xam ne kii euh, gis nañ ci moomi sikk ñépp mënuñoo fóot dafa am ñu yàlla ne yéen dee leen fóot yéen ñan yéen ñi am xikma waaw wal mawisa alxasana yéen ñi am mujaadala ahsan yéen yéen laa sëg yéen laa wax ngeen di fóot waaye bu ñëpp fóotundee penc mi yàqu mbokk yi ci wàllu laay ji muy innamal muminuna ixwa ci suñu bund bu njëkk gisoon nañu uquwatu nasab muy bokk bokk deret ndey ak baay mbaa ndey mbaa baay gisoon nañu uxuwatul ashira muy ñaareel bi mooy famille bi nga bokk mbaa giir gi nga bokk waaw xalpulaar a ca xalpulaar ya séeréer ya ca séeréer ya tabarkàlla ilaa axiri te dara du yàqu waaw sëriñ mun waru sëriñ Muntaxa yàlla na ko yàlla yokk wér waaw te dara du yàqu yàlla bu dara yàqu ñetteel ba nu gisoon ci uxwatu diin uxwatu diin fa asbaxtum bi ni bi nicmatihi ixwaana boroom xam-xam yi ne nañ wala alla wala alla hadihi al uxwa hiya aqwa uxwatin ala al itlaq uxwatu diin nee nañu uxuwa yépp moo ci gën a dëgër moo ci gën a rëy alal itlaax yépp nag ñeenteel ba am na ci uxuwa uxuwatul mawadda wa rahma waaw uxuwatul mawadda wa rahma moom danay faral di am ci diggante ñaari way dencante jëkkër ak jabar mbaa jabar ak jëkkër waaw tabarkalla uxuwatul mawadda wa rahma ndeysaan wa nazaana ma fi sudurihim min xillin ixwaana ala sururin mutaqabilin bi ma yëkkati jataay bi ci bind bi weesu ci suratul xujuraat aayu dix innamal muminuuna ixwa maa ngi tolloon ci uxwatu soxba waaw mu di àndandoo àndandoo kon bu ñu gisee mbokk yi inna haasa axi lahu tisun wa tisuna naaj wali naaj waaxida loolu àndandoo la àndandoo di san uxuwa googu tam lu am solo la mooy mooy mooy xew ci oto yi ak ci train yeeg ñoom seen yooyu ak ci avion yi nga bokk ak nit tukki mbokk yi bi boroom xam-xam yi di étudier uxuwa googu nga xam ne ci lañu toll dañ ko ubbi bëggante gi am diggante ñaari way dencante te léeg-léeg ñaari way dencante gi uxuwa googu léeg-léeg duñ ko doxal ndax tubaab xamul nopp naa la tubaab bëgg naa la rek la am moom lay wax yaayam moom lay wax sëriñam moom lay wax papaam je t'aime moom boobu la xam moo tax tubaab amul nopp naa la ngeen baal ma yéen tubaab yi wala yéen ñi làkki tubaab <laughs> kenn mësu koo gis rek professeur Jibi waaw mu ngoog moo tax almahabba gi nga xam ne mooy tax ab sëy am dëgër kenn ku ne di seet départ bi wala tansawul fadla baynakum uxuwa googu bu amoon yiy xew ci pénc mi ci sëy du am mukk ma wax la ko tey waaye su fekkee dañoo bàyyi sunu culture di toppi culture jàmbur yi ba sunu soxna yi tuddatunu soxna xanaa léegi maadaam la ñuy tudd jëkkër tuddatul boroom kër tuddatul sëriñ tuddatul sax jëkkër léegi monsieur la tudd monsieur waaw monsieur et madame ana gan uxuwa mooy boole monsieur ak madame foofu buum googu leen di tëkkaleel toog boole léeg-léeg moo fay ñàkk uxuwa googu nga xam ne moo ëmb assaahibu wa sadiq léeg-léeg mu am baynal asdiqa diggante xarit yi waaw diggante xarit ak morom ja léeg-léeg ñu xóotal ko lool te daa jar di xóotal ndax doomu aadama boo jàkkaarloo daa am ay meloom ay am ay maninam am ay jikkoom doomu aadama boo gis maninam yi ak meloom yi ak jikkoom yi su ko jagalee ci lay mën a nekk ak mbokkam yi nga xam ne mooy uxuwatul iman waaw al nasab al ashira ad diin al mawadda al rahma ba ci asaaxib muy àndandoo bi xam ngeen ne uxuwa googu moo amoon diggante asahabatu alkiram ñu ànd ñoom ñëpp ànd ak seen sëriñ ba sallallahu alayhi wa sallam àndin wu rafet yal na yàlla fayal ñu leen yéen saaba yi ndeysaan yéen ñëpp nag min abu bakrin ila axirihim xayaa waaw tabarakalla xeet wi amel na leen njukkal moo tax doomu aadama dafa am ba tey ay xasaais ay particularité doomu aadama daa am yoo xam ne daf ko man mu am yu mu tële yi mu tële bu xoolee ci mbooloo mi am ku ko man waaw sama mbokk ma xaban jaw rahmatullahi alayhi su ma masaana dégg ci oto bi luy yëngutu kur-kur <laughs> rek ma ne ma ne ko alu waaw foo nekk mu ne ma maa ngi ci garage bi ma dawal ñëw jox ko caabi ji ne ko daa am luy kuruj kuruj ji te xawma ko ndeysaan mu reeba sonn yal na ko yàlla yërëm waay ci teg loxoom ci njabootam waaw tabarkàlla cëy waaye loolu mu man ci oto man mii mënuma ko ci mukk léegi nag lam man bu ko booleeg li ma man man loolu uxoo googu la la sunu borom di joxoñ waaw homme d'affaires yi waaw ku mel ni Aline Lo lobbu maam jaara wala Serigne Seck Baye Mahamadan rahmatullahi ali rahmatullahi ala Baye Mahamadan laa bëgg a wax nga xam ne ñoom am na lu ñu mën mais am na lu ñu mënut wala peut seen xam-xam man caa ñàkk àgg damay misaal uxuwa gi am kon mooy ya ñu man buñ ca nekkee yañ mënut la leen nit ñi nekkal loolu moo daan am diggante sëriñ ak taalibe ba sëriñ bay xëy ba di xëy tool sëriñ bi di gontu toolam bu ajjumaa mu dem toolu boppam luy loolu mooy alaaxa yi nga xam ne mooy am ma aqaaribihi nit ki ñi nga xam ne ñoo ko jege dafa war a fexe ba mboolem liy énergie ci moom ci wàllu particularité yi nga xam ne moom la am ay xosaayis defa naa noonu la tudd bu fekkee jubut ngeen jubbanti yooyu mu am mu exploité ko nit ñi jot ci bu dee xam-xam bu dee am-am bu del ma mahaara muy euh, yeewte par exemple tey boo demee ci dëkk bu ñuy wax ngaay ngaay ñuy fabriquer ay dàll ci seeni loxo nga ñëw fii ci Medina Medina rawatina boo demee wetu stade Iba Mar Diop ba demee ci wàll woowu dangay gis su fekkoon ñun lu ñooñu defar ci dàll ñu jënd ko kon xaalisu dàll du génni dem ci dàll yoo xam ne boo ko jëndee sol mu xettu dagg nga dem jënd weneen ndax nun am nañ ko kon dàll mën nañoo defali dàll bañ doy li dàll <laughs> nga dem ci baykat yi li ñuy bay kasaalika nga dem ci nappkat yi li ñuy napp kon waxuma ne duñ dem bitim réew de waaye dañuy mottali dañuy mottuli loolu dafa am solo lool bi alxuraan di wax araayta les yukasibu bi diin ñooñu lay wax nit koo xam ne kii bëggul bëggul euh, maanaam ab am amam ci wàllu muusaay ab am amam ci wàllu alal bëggul keneen mos ci moom dong moo koy mos am na ci penc mi ñoo xam ne seen alal du gén dëgg seen lox jóge seen loxo mukk dem ci loxol keneen <laughs> ndeysaan yàlla na yàlla yërëm ñenn ci jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey intellectuel yi ñaare boo xasee am liggéey même bu fekkee quinze mille lañ lay fay par sa jëkkër teggi loxoom yàlla nu yàlla yërëm seetitit <laughs> man jëkkër yii am na ñoo xam ne na ma yàlla baal daanaka ñoo ma yaram ndeysaan yàlla na ma yàlla yërëm seetitit <laughs> leen ñëw kalaame la jëkkëram doo xam loo koy tontu ndax lii est-ce que dëgg la sax wallaay dëgg la uxuwa googu di am ci diggante ñaari way dencante di am ci diggante nit ak nit ci diine di am ci diggante famille bi yooyu dafa war a am kenn ku ne li nga am ci ay njariñ parce que doomu mbokk yi bu fi nekkee ne ñog nii rek day màggat kumur ñu yóbbu hôpital min hôpital ila réanimation peut-être wa min ha ila morgo wa min morgo ndeysaan ila armel ya nga yóbbaale sa énergie yooyu doo ko fi def door a dem ah kay da ko fi war a def door a dem uxuwa googu loolu bokk na ci li muy tekki boroom xam-xam yi mu ñuy newee ci wàllu uxuwa ci wàllu almahabba ci wàllu almawadda yi nga xam ne mooy mooy mooy fenqe ci góor gi denc te jigéen ji ñuy denc saxsiyatoom am ko ñoom ñaar ñu am ko loolooy li nga xam ne mooy dox ci diggante bi ba tabarkàlla xuloo xeex du am dóorante du am waaw waaw loolu mu am na solo moo tax saxsiya yooyu saxsiyatu zawjayni penc mi danga daan bàyyi nit ki bu ne yaay kii la bëgg ñu takkal ko ko bu dee ko jigéen bu ñu ya- bu ñu ne ko bëgg nga diw mu ne waaw ñu takkal ko ko waaye dangay gis bëgg nga diw waaw kenn du la ko takkal kuñ lay takkal mbay Fatima ca càlle loo koy doyee fekk mbay Fati bëggoo ko boo demee boo demee ci say bëgg ak malgré boo moytuwut rek tabarkalla mawadda gi war a am seen diggante du am ku ko waral yaay ji lànk sëy bi moo ko waral wala baay ji lànk sëy bi moo ko waral te loolu tabarkalla isa ataakum man baatu man foofu yonent bi nee na isa ataakum man man képp koo xam ne dikkal na leen bëgg a nekk seen jëkkëru doom ngeen natt tardaw na diinahu natt tardaw na xuluqahu mu ne fa bu leen waaj takk ga sawwijuhu daaw leen may ko ko illa illa tafalu takun fitna mu ne bu ko def ci pénc mi ne yàqu rek ndax gone yi fi juddu ci sëy yoo xam ne seeni parents nangam nangam gone yooya lu ci nekk mën na caa xew waaw tabarkàlla mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot maa ngi ci suuratu alxujuraat maa ci ay 10 innamal muminuuna ixwa ñu gëm dong kepp kot ñoo di mbokk mbokk yi mu indi leen ñaari xaqiqa ñaari xaqiqa ñaari xaqiqa alxaqiqatu al ula fi hada fi hadihi al aya al tayiba moo di innama al muminuuna ixwa innama al muminuuna ixwa tabarkalla cëy waaw innama al muminuuna ixwa ñi gëm yàlla képp ñoo di ay mbokk waaw mbokk yi bu fekkee uxuwa googu bokku ci loo doon bu fekkee uxuwa googu yow bokkoo ci loo doon maanaam ñi yàlla ne ñii laa fi am ku génn koo doon di san ah waaw ku génn ci koo doon génn gi warul kenn ci nun danoo war a ne ci biir te it duñ génn bu nu génne kenn waaw bu nu génne kenn ku nu gis ci biir gis ci lu ñu jubbanti nu bàyyi ñi mën a jubbanti jubbanti ko ndax ñaar ñoo nekk ci pénc mi waaw tabaarkàlla sas Ibrahima kan xarakatu <laughs> alfalaax ñaar ñoo ne ci pénc mi nee na ñaar ñoo ñu ne ci pénc mi mooy ki nga xam ne mën naa daawa ak ki nga xam ne munta daawa tabliix la man tabliix defe naa dégg ci bi nuy weesu ma leen di wax oustaz Demba Diop yàlla na ko yàlla yokk tabliix ñépp a ko war a def daawa nag ab guru ba koy def su fekkee majmuul muminina dañoo taxaw ñu gis ci biir koo xam ne du noonu ñii tabliix dañ koy tabliix luy tabliix tabliix mooy ku dégg waxtaan xutbab oustaz Dame Ndiaye al imam nga dégg ko ci masjidu nuur nga enregistré ko nga jël waxtaan woowee nga enregistré envoyé ko euh, sala waaw madame Mbaye kooku déglu ko ne ah la envoyé ko keneen ndax nit ñaa ngi koy def léeg-léeg ñu envoyé la xutba bi jógee fas Touré léeg-léeg ñu envoyé la xutba bi jógee fële ca ngaabu wala wala wala tabarkalla wala xutba euh, al imaam Ahmad Rafai <laughs> seet yàlla na ko yàlla yokk wér waay mu ndax yéen ngi déglu xutba bu xutba yooyu sax ak munaasabaat yi moom daal tabarkalla waaw ah tubaarkalla kenn mësu koo gis rek loolu mooy tabliix dégg nga wax ju rafet wax ju baax nga tabliix ko balliqu anni walaw aaya ndeysaan balliqu anni walaw aaya alayhi salaam nee ku jekkub aaya <laughs> ku jekkub aaya na la jaral nga dem ca ca rajo yaak télé ya ñu invité la nga nga jottali aaya jooju nga dégg nga jottali ko xeet wi balliqu ni walaw aaya bu kenn xeeb xeetam wi yëpp ku nekk jottali woon jenn laay ci alquran alquran gi ñëpp jot ci loolu loolay tabliix ak jumtukaay yi koy def waaw tey sànn la ma professeur Iba Der Thiam waxoon ndeysaan yàlla na ko yàlla yokk wér buñ bëggee def tabliix ba bëgg sa sa bayaan bii ci jàkka ji àgg ci àdduna si nu nuy def rekk ma xëm <laughs> professeur Iba Der moom ma ko waxoon yàlla ko yàlla yokk wér barkalo ba mu àggalee sunu sunu démb ji muy bindaat tabarkalla àggale ko jàmm waaw ñu exposé ko tabarkalla buy am ñu lu yokk ñu yokk ko ca bu dee lu ñu wàññi wàññi ko ca te ñoom xaadim sàmba ak tubaarkalla ñoom bekkaay mbay bokk ci ak ñi mel ni ñoom dina ci pénc mi te ku leen lim tubaarkalla doo àggal innamal mu'minuuna ixwa mbokk yi ku ci nekk ci suñ pénc mi léeg-léeg da bokk ci benn jamaa walla jamaa saxira waaye da nga cay bokk nag maa taasub maanaam bokk ca ba noppi di parparloo mbooloo yooyu boo ci bokkee ci benn parparloo ba contre mba yeneen mbooloo yépp wala nga parparloo ba indi al adaawa noonoo mbooloo yépp ba mu des sa bos wala al baxdaa nga soxore yeneen mbooloo yi ba mu des sa bos wala taxazub di di parti parti ba sikk parti yëpp loolu mbokk yi mooy indi ñol ñol ci pénc mi te innamal mu'minuna ixwa da koy bañ mbooloo mën a leex bokkal mbooloo mën a leex bokkal ndax bu ñu àndee ci tool bi mën naa am koo xam ne ki fleur bi ko neex mooy roge am koo xam ne rouge rose ak rouge ki jël rose na ne am naa fleur ki jël rouge na ma it am naa fleur waaw jàmm ne ñooy waaye bu kee ne ko rose bi baaxut rouge baax kee ne ko rouge baaxut rose sa baax te ñoom ñaar sorewuñu sax rouge ak rose ah ci wax ji dee sorewuñu couleur bi tam nag sorewuñu waaye bu fekkee ku ci nekk yaa nga wax sa couleur ak morom ñu fay xoolal ba fleur ya lax ndeysaan yàlla nu yàlla yërëm di xuloo ca fleur gi couleur bi baaxut ki ko sa couleur baaxut ba fleur yi xëy xëy la loolu de sunu mag ñi loolu lañ doon daw waaw atruqu kulluha ila rahmani te ndeysaan moo jibatun ya yaa jaani def na noonu la ko am Cheikh Al Hadj Malick waxe waaw is kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yahida ndeysaan ñoom nun lañ ko junje waaye nga bokk ci benn jamaa bokk ci benn jamaa ne bii ma nekk moo baax yéen ci des ñëpp nangam loolu déedéet loolu lislaam mbooloo yi fi nekk yëpp moo leen moom waaw docteur Abdoulaye Lam moo ko waxoon ca ca ca aj màkk ga ndeysaan ujaaji ku ñëw rek ne ko damaa gis kuy jullee nangam ñu naan ko damaa gis kuy def nangam rek ba mu bari tubaarkàlla mu woo leen leen lépp na nga yónent bee ko moom ndeysaan ujaaj ba daal di xëm alxaaji Mouhamad Lamine Sène ci Ndóomóor waaw ñu këpp ma ne ko waaw waaw lay wax na dëgg mbokk yi suñu borom daa wax loo xam ne kenn du ko dégg xanaa mokkal ko ba noppi di tàqale lu mu wax aoudu billahi min alsheytan arrajim inna alladina farraqu diinahum wa kaanu chiyaa inna alladina farraqu diinahum wa kaanu chiyaan lasta minhum fi shay sadaqallaahu l-aziim yonent bi jàkkaarloog ka doon liggéey liggéey ba Muhammadun ibnu Abdullah radiyallaahu taala eh, sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ma Muhammadun ibnu Abdullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko inna lesina mboolem ñi nga xam ne farraqu diinahum dañoo pàcce pàccee diine ji inna lesina farraqu diinahum dañoo pàcce pàccee diine ji wa kaanu chiaan tey parparloo wa kaanu chiaan tey parparloo lasta minhum fi shay'in séqoog ñoom dara ah mu ne ko maa la ko wax ndekete ni ni taw ni ni ni tawxiid nekk farata tawxiidullah nun la tawxiidu sufuufil muslimina nekk farata ndeke ni ni shirk bone ndeke nun la tafriqul euh, diini bone ndax bu bu nit shirkee mu bu nit shirkee faqad xarama allahu alayhi janna waaye bu nit xàjjalee xeetu alayhi salaatu salaam wii wala mu xàjjale diine ji yàlla ne yonent bi lasta minhum fi shay séqatu leen dara ah waaw kon al intima ila majmu min al muminin farata lay lay doon bokk ci mbooloo mi farata lay doon bañ cee bokk dañ koy tere su ko defee masaalix yi nga xam ni xeet wee ko moom te bokk ko bokk lépp waaye jël ko pàcce pàcce ko pàcc pàcc bu bu ne dem loolu du luy jëkk pénc mi innamal na ixwa maa ngi suratul xujuraat ay diis innamal mu'minuuna ixwa ñi gëm yàlla dong ñoo di ay bokk mbokk yi haadihi aljamaat akbaru mushkilatin yuaani minha almuslimuun mooy hada tashartum pàcce-pàcce googu mooy li gën a sonal jullit di tey ci penc di xëy ci loo xam ne mënoon nañu xëy ci leneen romb ko bu yàgg na ci leneen ñu ne ca loola rekk rek tabarkàlla moo tax kon pàcc pàcc yooyu ak mbooloo yooyu bu laay ji ñëwee daf koy dàq ndax suñ ko toppee doo fa day am ci suñu diggante yoon jox am xëccoo am jàppal bàyyil am mukk innamal mu'minuuna ixwa ndeysaan ah wa an takuna al bayna al uxuwa al muminin alaaqatu xubbin alaaqatu wuddin mbokk relation ji war a am ci diggante way gëm yi mooy relation sopp relation cofeel fam benn ustaas bu ñuy wax ustaas fay Faye <laughs> ndeysaan su la wooxee daf naan la sama soppe ku mu woo téléphone loolu la lay wax sama soppe bi ma sopp ndeysaan noonu la la koy waxe te wax na dëgg fi ne bu soleew dàllam di jëm ci kër kenn ci nun kenn ci nun sàllaw bu rombee jàllo muy jaay <laughs> jaay yu ñu tuddee banaanaak ndeysaan gaañooñu bu ca ngàbbeek mbuus du ko mën a def ci génn mbuus ndax day fàcc ndax lam ci am day bëri lu tax al alaaqatul xubbi googu mu bëgg mu am wala alaaqatu xubbin wa alaaqatu mawadda gim bëgg mu am moom lay fésal noonu sas Abubakar Fay yal na yàlla yokk ko wér <laughs> te soqali daara ja ca si eh, sibi ponti waaw daarul arqam ibnu abil arqam ma tax sunu borom ne fa aslihu bayna axawaykum defaroo leen defaroo leen waaw man de seetaan naa benn euh, documentaire ci wàllu defaroo musuma seen kéwal gu lekk morom ja ci documentaire yi musuma seen lëg guy lekkug lëg mukk waaw musuma seen ci mbaam yi ci àll bi mbaam muy lekk morom ja lu tax dañuy defaroo dañuy defaroo ndax ki ne ci mbooloo mi te am sikk mbooloo mee ko war a dimbale dindal ko sikkam soosu ñu dem waaye génne ko ci mbooloo mi nag looloo dul noonu waaw bu kenn génne kenn lu tax nuy génne waaw lu tax nuy génne alayhi salaam nee na kopp koppaleel leen ma li ma am bashiru nag wala tunafiru li ma am akas niiw kopp koppal leen ko waaw ndax ba mu fi nekkee da liggéey pour am am mbooloo mu liggéey ba am am mbooloo bu amee ci mbooloom ñoo xam ne ñu ngi nelaw waaw nañ leen conscientiser te bàyyi leen ci mbooloo mi waaye bëgg leen génn ci mbooloo mi dugal leen ci daayiratul kufri ah takk fiir leen ne leen yéen bokkatu leen ci loolu nag li diine bañ bu ko kenn def waay mbokk yi waaw Moussa noon na rabbi sarax li sadri na dënn bi yaatu lépp xëcc nga xejoo ñëpp tabarkàlla en tout cas ñëpp daal koo na ci muhammad ci wetam mu ne la sallallahu alayhi wa sallam waaw la xam loo woon Cheikh Ahmad Tidiane Gaye ca ca ca waaw kër ba mu ñëwee Dakar di ñëw kër El Hadj Cheikh Touré torom bu ñaari jànq ya waaw ñu taxaw di wax ba mu yàgg rek ñu dégg bilaal boobu bilaal ba noddu bilaal sëriñ aatulloo yal na ko yàlla yërëm noddu gone gu jigéen ga ne morom ja maa ngi julli ji waaw nee na sama tànk yi laxasoo téet téet téet mbokk yi fa aslihu bayna axawaykum nan defaroo bu nu defaroo nag mu dégg euh, ci bind bi ñaaw njort yaaku ma soo u zaatil bayni wala yàqub diggante fa innaha alxaaliqa ndax li ñu am akas néew daf koy wat yóbbu maanaam ñaawal ci diggante ñaari nit toxal ay wax ci kii yët ko kële ne ko diwala ko wax toxal ay jëf yët ki ne ko diwala ko wax diwala ko jëf loolu jur ci biir groupe bi biir mbooloo mi loo xam ne loolu lañ tuddee alxaaliqa wat lañ am ak néew di kopp-koppal mu wàññeeku mukk mbokk yi akbaru musibatin tusibul muslimin tafriqatuhum tasarjumuhum al adawa baynahum tarashuqu tuhum fi ma baynahum li li gën a métti ci li ju li li dal al muminuuna tey musiba mi gën a rëy mooy pàcc-pàccee gi ñu pàcc-pàccee diine ji waaw noonoo gi dox diggante ñi ci biir diine ji waaw féewaloo gi ci dox arab ba danoon taaxuraan mu ne mu ne wa kullun yaddaci waslan bi layla wa layla laa taqiru lahum bi zaaka nee góor ñaa ànd mbooloom góor kenn ku ne ne laylaa la nopp te laylaa nubu ca kenn allahu akbar wa kullun yaddaci waslan bi layla wa layla laa taqur lahum bi zaaka waaw ku ci ne lay ne laylaa man la nopp ndekk laylaa nubu ci kenn xaqiqa bu am solo la mbokk yi mooy diine ji jàpp nañ ne pàcc pàcc yooyu groupe bu ci nekk jàpp nga ne la nga yor képpay lislaam yow rek yaay liggéeyal lislaam ndekete si oustaz Ahmed Dame Ndiaye nee na ku bëgg fii te yàlla fépp tàmbali bu am solo ku bëgg féete yàlla fépp tàmbali koo yàqal lay wax nga dëgg wa kullun yaddai bi waslan bi layla wa layla laa taqiru lahum bi zaka ñëpp ne laylaa lañ nopp liñ ci jublu mooy ñëpp ni diine ji lañ bëgg diine ji lañ bëgg diine ji am benn membre bu ci nekk boo xam ne jàmbaariwut nga ne ko génnal ci biti bokkoo ci la ko tee jàmbaari jëm koo def ci moom waaw tabarkalla <laughs> wa kullun yaddaci waslan bi layla wa layla laa taqiru lahum bi daaka ma ñëw ci beneen xaqiqa ci aay ji suratul xujuraat aaya dix innamal muminuna ixwa waaw mooy lan ataawun ataawun mooy alquran daf ko digle dafa digle taawun taawun mooy dimbalante li kii man te kii mënu ko ñu dimbalante kenn ku ne defal sa morom li nga man te moom mu tële ko waaw biir groupe bii di al mu'minuuna mboolem kuréel boo ci dégg jàppal ne mi ngi ci biir pàcc pàccee gi baaxut waaw sunu borom nee na waatasimu bi xablillahi jamia waatasimu bi xablillahi jamia lisaan question bi maa la si ana lan moonu mën boole mooy xablullaay buum yàlla gi ndeysaan bu musaan a dem ba ñuy nekk kub-kub ñu dem ci xurwa taxani da ngay dagg ak xànc waaw ci ci gi gis gi laxase ko matt mi daa di yenu ndeysaan nun ñépp mbokk yi nañ dugg ci buumu gi yàlla googu jamian ñun ñépp mu laxas ñu niw say waaye maa lam yakun hunaka xabl lan yakuna hunaka ictisaam bu fekkee buum gi nekku fi aw say munu fee nekk waaw bu fekkee buum nekku fi aw say munu fee nekk te xam ngeen njariñal buum ciw say Hmm? waaw njëriñal buum ciw say waaw mooy njariñal diine ji ci jullit ji nun ñëpp buum ngi takk nu allahu gi takk nun ñépp allahu akbar moo tax bu fekkee buum nga nekku fa hunaka tafarruq waaw bu fi buum gi nekkul doo yenoo say de mën ngaa yenu genn matt mbaa ñetti matt de waaye aw say moom doo ko yenu aw say moom buum rek te nous sommes euh, aw say <laughs> waaw xaw ma ñu aw say ci tubaab waaye doon nous sommes aw say ñun ñëpp aw say lañu buum gi ñu tuddee xablullaahi moo ñu moo ñu war a takke moo ñu war a takke ñun ñëpp ñu takko gis nga euh, professeur boo seetaanee ñii football ñii football kenn ku ne am na poste boobu man yeneen ya boo ca demee dangay ngay ko nàngam nàngam waaw loolu Aliou Cissé xam na ko waaw am surtout Fall xam na ko waaw gaa yi nga xam ne ñoo ci nekk xam nañu ko tabarkàlla waaw ñépp xam nañu ko lan lañu xam mooy football daa am ku ñuy wax moom loolu la man ailier yi gis nga ko latéraux yi gis nga ko milieu de terrain ak attaque loolu attaquant ñoo ñoo fi nekk xanaa latér latéraux yi ku ci nekk daam fu ñu lay teg tabarkalla <laughs> mu ngoog daal bëgguma bëgguma euh, ma yaasin maar ne ma ban poste nga nekkoon waaye daal équipe boobu nga xam ne mooy football góol bi bu yoree bal day xool terrain bi ki gën a jekk ci moom mu biriŋal ko bal bi mu biriŋal ko bal bi bu gisee ni ñëpp a ngi ca kaw mu dégaase bal bi loo tax ndax xam na ne fukk ñi ci terrain bi ñépp mook moom ñoo ma far te dugal bii la bëgg góor ñaari góor bu dugal bii Ablaye Diaw bëriwul waaye fu bii duggee da ngay kontantil góol kontante loo xam ne lu tax xam na ne gaay mi dugal nañ am na ci góol bu daan ndott ndott xaw ma nu koy defee noonu xaw ma ci ban ban man réew la bokk waaye dana wone mbégte mooy kon jullit yépp fu jullit amee ndam ñépp am ndam xaj Abdul Aziz moo ko daan wax waaw waaye fu jullit amee defet nun ñépp ko am wa'tasimu bi hablillah jami'an rek waaye wala tafarraqu ndeysaan wa'tasimu bi hablillah jami'an wala tafarraqu maa ngi maa ngi ci ay dix innamal muminuuna ixwa jullit di ñoo di ay mbokk mbokk yi suñu teg fecc law nazana al ictisam bi hablillah a tafruqa kon shay'un tabi'i jiddan waaw bu ñu tekkee buum gi ñu takk automatiquement tàqali ko ndax boo ñëwee ba agsi teg buum gi takkoon say bi nga tekki ko matt mi tasaaroo waaw matt ma tasaaroo mu ngoog ndax doomu aadama joo seen dafa am nu ko yàlla mooñe waaye dafa am lu ko yàlla sant niñ ko xame moo di kon bu bu jàppalanteeg amul rek tàqaloo am waaw waaw te loolu musiba moo xam ne du jug xeet wi du nu jig du jig pénc nu joxante loxo nun ñépp nekk ca say wi bokk ndey ak baay yëg ne li nga li nga gis ne sa moroom daf ko sikk li nga di ko coow moom mën na faa jóge yow tam xam ci yow sikk di ko coow waaw mu ngi ci mi ngi ci bindi ci kanam waaw mi ngi ci bindi ci kanam tabarkàlla waaye daal mbokk yi sunu borom daf ne wa taawunu dimbalante leen allahu akbar wa taawunu dimbalante leen te wa taawunu amrun fil quraanil te gaaya nee ñoom docteur Ablaye Lam kullu amrin fil quraanil karim yaqtadil wujub ñoom nun lañ koy nun lañ koy jàngale bu ñuy jàngale mbirum usul kon nag wa taawanu alal birri wa taqwa luy alal birri mooy salaahu dunya luy mooy wa taqwa mooy salaahul axira yàlla mu nañ yéen rek laa fi am waaw moo tax ñu jiital waaw gi <laughs> yéen rek laa fi am dimbalante leen alal birri ci lu baaxal seen àdduna dégg ngeen te ngeen dimbalante te jàppalante ci lu baaxal seen alaxira dégg ngeen googu uxuwa lanu sunu boroom joxoñ bind bi nag jeexul mbokk yi waaw yàlla nañ dund ba àjjuma te weesu ko jërë ngeen jëf maa ngi jéglu soxna yépp di jéglu sëriñ si yépp di ñaan jàmm ci réew mi ak yi ko wër tabarkalla sunu mbokkum technicien bii di ajawe Eh, Adja Issa moo ci nekkoon moo nekkoon ci wàllu xarala wi ngeen àndoon ci tafsir beeg seen mbokk Alioune Sall yal yàlla sàmm nu yàlla aar nu yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara te soqali suñu sponsor yii barkeela leen ba ñeneen ñëw in uridu illa al ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu